asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ànd ak li nga xam ni rek mooy programme Sénégal set ak groupe am info Rewmi Dakar Net tey nag euh, li Olof Ndiaye di wax rek lu yëngu lu ne am na lu ko yëngal waaye lu def di wax ay du njàmbat ba tax na tey moo waral suñu déplacement ñëw fekk ci ki nga xam ni mooy Mame Mor euh, mbaay mi nga xam ni mooy yoonu géej gi. di porte-parole sëñ bas Abdou Khadre waaye tamit di jëwriñ ci ki nga xam ni mooy Serigne yu Faye di représentant xalif général fii ci Ndakaaru kon tey moom la ñu fas yéene seqal euh, euh, jataay boo xamante ni ji ay laaj ko tontu dina dox suñ diggante li ko waral nag ci kanam tuuti di ngeen ci xam dara ndaxte tuuti du teew ñuy nataal ndaxte am na ay kàddu yoo xam ne ji jub na bàyyi ko ci lenn ci ay sénégalais yoo xam ne ji ñu jëmale ko ci après euh, màggal gi lan moo ko waral ak lan moo tax ñu waxee noonu. Mamor Mbaye dina ci indi ay leeral ñu bàyyi ko rek mu nuyoog suñu mbokk téléspectateurs yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci diaspora bi surtout asalaamaaleykum sëñ Mamor. waaleykum salaam El Hadj maa ngi lay ziar baax di la nuyu di nuyu réew mi di delloo njukkal ak ndokkeel Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ci ndam lu rëy lii ak jaloore ju rëy ji mu romb am ko te àddina bépp apprécier ko di santaat baax Serigne Bassirou Mbacké mi nga tudd moom sëñ Abdou di ko masawu itam. waaye moom boo ko nee massa coono sax mun la massa yoon kenn du ma massawu ndax du coono ndax li sëriñ bi dajoon xaaj ba da dajaguñu ko te lu nu am bis bii moo nu ko may noo ngi koy ziar nag say téléspectateur ak téléspectatrices yëpp di nuyu réew mi sëñ Mbàkke yu moomu nga tudd noo ngi koy ziar au passage di nuyu sëñ Abdoulaat moom sëñ Cheikh Gaynde ma ñu tudd joxoon ko euh, communication sëñ Ousmane mi yor communication màggal gi yëpp lépp rafet di ziar mbooleem njabootug sëñ Touba gi nga xam ne amuñu lu dul ñoom noo ngi leen di bu baax di la nuyu. Euh, jërëjëf sëñ Mamor gannaaw ba mu nuyaloo ak ñi nga xam ni ñooy mbokk téléspectateurs yi rawatina mbokk taalibe yi ñuy seetaan fii ci Sénégal et partout dans le monde euh, Mamor laaj bu njëkk bi nga xam ni moom lañ lay jëkk a laaj rek gannaaw màggal gi am na lu jot a ruus ci ay kaddu bàyyi ko ci lenn ci ay sénégalais ñu ni tuubaa ñi fa màggali woon boo ko dee xayma. maanaam quatre-vingt-quinze pour cent téeméer boo jël juróom ñeent fukk ak juróom mën nañoo ñoom wax nañ ni amuñu màggal fan lañ teg loolu sa gis-gis. waaw bu njëkk mooy may ñaawlu kàddu yooyu surtout ci ñi ko wax yaakaaruma ko woon nag ci ñoom muy kenn ki sax mun naa ko bañu tudd ndax nee na mi ngi jéggulu muy oustaz si la ki ci topp di Maodo Faye nga xam ni. lu mu dencoon la maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo am tawati xol ju yàgg ñagg-ñaggi xol xool les négatifs te xam ni y a beaucoup de loolu li ma la ci mën a wax mooy man mënuma gëm nu def cérémonie officielle sëriñ Basiiru moom sëñ Abdou Xaadir sëñ Muntaxaa yónni ko ne ko santal ma nit ñëpp rawatina la jeunesse moo tax wax ji li ci ëpp mooy jeunesse su murit lii rek war na tax ñu dolliwaat sunu pas-pas dolli sunu jom ak sunu ngor sukkaat sunu bëti oom jaayante waat ak sëñ Tuubaa ne sant na leen gërëm na leen keroog bi sëriñ Muntaxa naan Seex Bas jërëjëf dootuma wax dara sama xol sedd na maa ngi toog màggal nag ñoom sax dégg naa moom Maodo mu wax ne ñi dem màggal xamuñu màggal mais ñoom ñooñu sax xamuñu la xewoon ci màggal gi ndax man wax yu njëkk ya moom laay gën a gëm ci ñoom seeni wax Sëñ Abdu Lahat daan wax ne bis bi àttan na lépp dee leen ko sëf mu yóbbu ñi ñëw màggal mën naa laa géñal ci sëñ Tuubaa ñëpp am màggal ndax kenn ku ne bi ngay ñëw ànd nga ak conviction ngëm goo xamante ne ni parce que man waxantuwuma avant màggal ñëw naa dakaar ay fan nit ñi dañ lay woo téléphone maa nga woon ci sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir pendant un mois mu toog ci kër sëñ Touba gi di recevoir nit ñi màggal gi xañ ko vie de famille xañ ko lépp bis bi dem ba toll fii mu toll kon boo gisee benn nit ñaari nit mu ngi mel ni tey nga doon wax naan weeru koor gi passé Mamour am na juumte bu mu ci def kon caaro yi gëmu dëkk kenn amu fa am amu fa koor loolu est-ce que yenu na maanaa parce que nit bu waxee da ngay xool lam wax mooy lan ñoom ñooñu nag dafa am ñoo xamante ne dañoo nëbbatu ci ay salafiste di ko nëbbu xam nañ leen ñu ngi leen di topp di xool nan la ñuy communiquer ak yoonu murit parce que saa yoo gisee lu ñaaw ba ne da nga koy wax parce que fenn rek laa contesté ki nga xamante ne mooy Mbacke Sylla parce que man sëtub Serigne Touba bëgguma ku ko wax dara ndax it ak ku mënti doon te dama bëgg à part di ñu bàyyi di wax waa kër Serigne Touba yi di tudd sët yu jigéen yi di wax naka su dul noonu ak ku mënti doon bis ni ko tey taxaw naa pour solol leen bu bu avocat taxaw naa pour doon ku jàmmaarloog ñoom man dinaa taxaw jàmmaarloog yow parce que ñoom seen maam a gën ci maam yi maam kon kenn mënu leen a gën te lu waay gis ci ñoom. banaan safaan la di ko wax boo xoolee ci sa famille gis lu ko yées te sëriñ Moussa moo ne sëriñ Touba tarbiya na ndaw ña fa moom tarxiya mag ña fa moom mbooleem jigéenam wa góor defar na leen ci xarnu bi doo sëti sëñ Touba yi mais baax nga baax laa fa gis demal ci soxna may laat moom sëñ Abdu Laat nañ dem gëstu ci lan la def ci daara demal ci soxna May moom sëñ sony bu soxna May abu foo ko fekk kaamil baa ngi ci loxoom soxna Baali Muntaxa mi li muy dimbali ci ay daara di ko def soxna maam xëri Mbàkke moom sëñ Murtada sëti sëriñ tubaay yu jigéen yi li ñuy def ci daara di ko def ci ak mbaax looloo lañ waroon dem gëstu ko mbàkke mbàkke yi nga xam ni bisu màggal gisuñu dara lu dul di xalaat ne bis seen maam jàmmar la woon ak tubaab bi te sëñ bi bis boobu naqar la waroon doon bu nu sëñ tubaa ne woon naqarlu leen ko dañ koy naqarlu ndax nun lu nu sëñ tubaa sant daf ñu dañ koy def waaye mbég leen ci la wax li ma la mën a wax ci gàttal ñi demoon Touba ñëpp a am màggal parce que mbooloo moo xam ne ñi ngi raj-rajloo ci jumaa ji kenn ku ne bëgg am ngërëmu suñ Touba Touba ngay dem ba gis koo xam ne sax c'est-à-dire nit ñi bëgg nañ lu baax peut dañu xamul giri yi sax da ngay gis ku koy raay foog ni bu ko raayul du am màggal giri yi tiim sëriñ bi da ngay gis koo xam ne tànk tegu ci ay loxoom pour moom amut màggal màggal Touba gii ngay dugg ci kër fekk un colonel boo xamante ne boo ko bëggoon a gis audience nga koy ñaan mu sol perkaal wala un directeur de société man dem naa ci benn directeur société boo xam du ma tudd turam sama xarit la ma ñëw këram mais employé mi falan dal mais dama amoon benn emploi xam lu ma wax nee na ma man li ma gën a yéem mooy directeur bi gis ko sax yombul te société ba boo ko bëggee gis da ngay ñaan audience mais tey moo nu tegal ay ndox yi raxasu combien màggal gi day yokkaate màggal gi ni muy yokkee ci baatin noonu lay yokkee ci saayir ñaata moo dugg ci keesu état am na lu ñu waroon a wax ci benn vidéo boo xamante ne peut-être gaa yaa ngi koy jël di ko tas di ko circuler parce que ki bëgg nga wopp ki bëgg nga dee loo wopp mu xeeb ko ah. màggal gi bu mu jàllee ambassadeur France ñëw maa ngi koy maa ngi koy maa koy maa ngi koy remercier ñëw ne sëñ Mountakha bëggoon naa laa gis ambassadeur France maa ngi ko fekkee. Mbàkke bëgg naa fee ñëw te it maa ngi lay wax ne la lépp loo ne maa ngi ci waaye Mbàkke dootuma def dara ca tàgguwuma la buñ demee ba France mi déporté woon Serigne Touba ñoom mutee ñoom ñoom ñoom sujja commandant sujja déporté sëñ Touba seen i sët tey ñëw naan sëñ Mountakha lu nu gën a lu nu gën a def nii ma nu nag yéen suñu xol di gën a sedd kon sëñ Touba gañe na guerre bi Iblis tuxu na bis boobu seytaane amu ci yoon ah Serigne Touba ci bis boobu la wax ne naajee naajeytuhu biyaa nasiri yaa wali ka faytani iblisa inda jeewali bis boobu nga xamante ne ahlu badirin kiram dañuy fekke màggalu Touba yaa leen gisul te màggal gi fim ne nii mais ma sunu bàyyi bu ñu xoolee dinañ xam ni mu ngi gën a ànd ak jamono ci taar di gën a baax di gën a neex Serigne Fallou mu baax ma jàmbaar ja nga xamante ne yoon yoon la woon yoonu murit yépp xëy bis ne dundu liggéey ñu ne nu ñu def ñu ne nan sant sëñ Fallou ñu ne ci lan xanaa lim daan tawal réew mi wala ñu ne déedéet woote gi mu wooteel sëñ Tuubaa bis bi nga xam ni bis bi mënutoon a ñàkk ci yoonu murit mais woote nañ ko ay at yoo xamante ne nii mais màggal gi bu ay jamono bo booy seet sëñ Abdoulaat moo raxas Touba mais taaxuraankat yi sax dañ daan ñëw Touba ñii naan maa ngi dem seetaani njool ñang ñii naan Samba Sow ñii naan maa ngi dem seetaani ñaaw caw ñuy taaxuraan di wër jumaa ji màggal gi da daan jàll ah nga gis ñii naan ba tërëf mais tey yow leer na leen yonent bi bu ñëwaatoon àdduna benn dëkk rek lay mën a tëdd stable wala mu ne fa xelam dal mooy Touba ndax sell ga bañ na ko ba presse bi lu ñuy wax dëkk bu sell ba fi mu ne boo nee dëkk bu sell ba xel yi fu ñu jëm Touba la jëm kon taalibe yi sëñ ñoo gën a sell maa ngi leen di wax daal na leen képp ku ci yorati sa làmmiñu tooke na nga ko ŋaaŋ njabootu sëñ Tuubaa gi wadd kenn ku ci ne ci ñun sunu famille yi am na lu gën a rëy lu gën a ñaaw te yaa ngi koy nëbb ah sant wi nag sëñ Tuubaa ko defar kenn mënut ci dara boo demee pooru Ndakaaru mën nga faa fekk junni dokeer maan waaye sant waay sant ba ci sama sant wi nit mën na koo sant di yenu ba mu des ahlu Mbàkke bi ci sëñ Tubaa ñëwagul sant weeg sant yëpp a bi mu ko laalee sant wee gën a kawe sant yëpp baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat xaadali kun fayakun yàlla barkeelal sëriñ bi sëriñ Moussa Ka nee na ko woon daal nun tuxu nan sunu këri baay gàddaay def la ngën gi baay Tuubaa di kër Bàmbaa di waay màggal gi li ci dee ci giléem lañu waroon a taxaw ci télé yi wax ko dara lu giléem amut fenn ci àdduna bi ah Mauritanie seen nag yëpp jeex na économie bi mu yokk nañ ci wax mais bul seet rek benn affaire boo xam ni da naan occasion la pour ma jël sama tawate xol du yàgg ci yoonu murit occasion la boo ko defee tamit di fi fekk am Mamor Mbaye gis nga xam la moo tax ma yeex leen a tontu fan yii yëpp damaa ñibbi si taw wànnen wànnen maa ngi doog a mën a xool ni wànnen ba noppi ma doon santaale gis nga màggal gi bu rombee maa ngi digal taalibi sëñ Tuubaa yi sax semaine après sax nañ koy màggal est-ce que comprendre nga li ma la wax nanu koy màggal di ko di ko di ko di ko gunge ci mbaax di ko gunge ci tedd nga te nu bàyyi yii nuy def sëriñ tubaa raw na tey raw na démb te bu ëllëgee lay gën a raw soo amee lu la naqari na xool noo koy régler soo amee sa règlement de compte na nga xam noo koy gérer mais nous sommes pas d'accord que surtout Serigne Touba nit di ko attaqué ti te nun nu taxaw am nañ kuréel goo xam ne ñu ngi ko teg saytu yoon wi la tudd mi ngi ndakaaru dama bëgg reewande gii gaa yi di jaay di ko jëme yoonu murit nan ko wàññi